asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet suñu mbokku téléspectateur yu TMS TV ñu ngi leen di ziar ci àjjuma bi di amati mbégte di ñëw ak ci seen émission Juma Mubarak di profito ci occasion bi nag di sant le xalif général des Guinées di Alaaji Thierno Moulay Sow di la maréchal di la bourreau de demm di le roi des rois di la xalif de xalif di le roi médecine traditionnelle internationale the king of the king di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér-gu-yaram di ko ñaanal soxna madame Sow di ko ñaanal prince Moulé di ko ñaanal suñu yaay eh, soxna ajaratu Mariama Kamara di ñaan Mamadou Aliou Sow yal na yàlla yokk ay leeram di ñaanal suñu goro aussi soxna umu di ñaanal eh, njaboot geeg ñëpp di eh, wax ni nag tey amati nañ mbégte ñëw ci seen émission Jumaa Mubarak Jumaa Mubarak bi nag tey dafa ala daw ñu ngi fii ci clinique bi di clinique Alaaji Thierno Moule Sow euh, ñu nag euh, fas yéene jàkkaarlook euh, Diop mi nga xam ni mu mi ngi fii ci kër gi nekk adjoint sécurité nekk fii ay ati at ci kër gi di def liggéey bu am solo ma nekk ak moom fii ci kër gi mais nekk ak également ki nga xam ni mooy directeur kër gi moo jiitee kër gi également di Alseyni Sila nekk suñu rakk bu yaru bu baax bi nga xam ni Euh, vraiment bi ñu nekkee ak moom fii ba léegi moom ngay ndeysaan dafay yaatal rek toujours kon maa ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay tey ci àjjuma bi euh, sëriñ bi nag ku ko xam xam ko ci social ku ko xam xam ko ci jàppale àdduna euh, moo tax jumaa mu barak ñu déjee ko jumaa yi déjee ko daara yi mais déjee ko askan bi te comme kuy jàppale la le monde entier defe naa ni sa waa kër bu ñu soxlaa Euh, defe naa ni da nga ciy taxaw te sëñ bi aussi euh, du jóg du tay saa su ne di taxaw ci lu mel noonu moo tax jumaa mubarak bi tey ngeen gis ni moo waral présent teewaayu jóob nga xam ni euh, dafa am loo xam ni moom la mbëbët muy jëm ci wàllum tabax ñu koy ñaanal yàlla yàlla suñu morom mbébétam boobu mu mu yeggali ko ci alhamdulilahi rabbil alamin moo tax ci loolu bi mu sollicité sëñ bi sëñ bi aussi am na enveloppe boo xam ni moom la ko jox participer ci euh, tabax boobu ñu jaareele ko nag ci émission Jumaa Mubarak kon euh, damay oo euh, sama naataango Alseyni Sila mi nga xam ni moo jiitee kër gi mu ñëw daal di indil ñu enveloppe bi nga xam ni le xalif général des jinne di Alaaji mu Moule Sow moom la jox Diop kon Alseyni ñu lay ziar di la jox sa wàccuwaay Euh, yaa ngi en direct sur la TMS TV bi euh, ñu seetaan rek cérémonie de remise bi nga jox ko Diop. waaw enveloppe bi sëriñ bi moom ma ko jokkoon pour ma jox ko Diop incha allah comme ni nga ko waxee rek noonu la demee quoi vraiment di ko sant bu baax a baax parce que lii c'est pas la première fois sëriñ bi moom si lii la dëkk ñun ñi nga xamante ñu ngi ak moom macha allah noomuñu dara suñu feebaree moom moo ñuy faj suñu. naree xewale dara aussi day dugal si loxoom macha allah lépp lu ñu waajal daal bàyyi ñu si ginnaaw vraiment dañuy ànd ànd bu rafet macha allah yaatal yëpp yemale yëpp aussi jàppal ñu bu baax a baax si zaahir ak si baatin macha allah di ko sant bu baax di ko ñaanal jàmm. di ko di sant personnel bi yëpp di la sant yow tam Moustapha Fall macha allah di rafetul euh, vraiment euh, jotaay bi fii macha allah. waaw jërëjëf kon si la moom ngeen déggoon muy wax noonu ñu gudd fan ak wér-gu-yaram yàlla yokk xéewal yi euh, parce que euh, defe naa ni euh, yàgg na ci sëriñ bi di def liggéey bu am solo fii ci kër gi sëriñ bi aussi am confiance ci moom ñi muy liggéeyal aussi am confiance ci moom mu jox ñëpp cër ñëpp respect kon defe naa ne enveloppe bi moom ngeen di gis noonu le xalifa général jox Diop participer ci jumaa Mubarak ci tabax bi nga xam ni Diop fas yéene la ko def defe naa ni loolu lu am solo la kon Diop ñu ngi lay ñaanal yàlla suñu borom mottali lépp. kon euh, ñu buggoon rek euh, laaj la euh, kàddu gu njëkk mooy lii nga xam ni sëriñ bi def na ko lan mooy ci sa jàngat. waaw Moussa maa ak waa ak waa këram ak soxnaam ak ñëpp macha allah ak yaayam ak ñëpp macha allah di am contentement bu baax a baax eh, di wax nag lii du gulet lii yàgg na. maanaam lii ngeen gis tey te boo xoolee sax vidéo bi ñu ñoo ko sabab def ko parce que nit nag bu la defee lu baax faw nga wax ko faw nga wane ko parce que ku dul sant ku dul sant nit doo sant yàlla. vidéo bi ñoo ko sabablu daal di def vidéo ne ah kon de sëriñ bi defal nañu lu baax ah dinañ ko wane parce que nag day defar jàmbur yi lu baax muy fés kon ñun ñi nekk ak moom tey bu ñu defee lu baax tey dina maanaam ñi dinañ ko xam dinañ ko gis waaw te man nag damay am contentement bu baax parce que dama ñëwoon rek wax dama bëgg a tabax rek macha allah loolu rek laa ko wax mu yëkkati xaalis bu bëri jox ma gis nga boo xoolee affaire bi moo nekk nii xaalis bu bëri li nga xam ne tey jii dinaa si tabax sax ba mu des kon sëriñ bi lañ koy sant waaw sëriñ bi lu mu def si ñun bari na macha allah li mu def si kër gi bari na li muy def si personnel bi bari na li muy jàppale nit ñi bari na macha allah kon dañuy am contentement bu baax a baax a baax a baax a baax eh, di ko gën a ñaanal di ko gën a ñaanal bu baax mu yàgg fi te waaw parce que nag nee naa la Moustapha ku sant nit doo sant yàlla kon sëriñ bi ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm bu baax a baax a baax di ñaan nag ànd bi mu gën a sax gën a dëggu parce que nag lu ñu bëgg nag mu jàpp si waaw te nag ah xoolul ne ñii dama leen di fay weer xoolu dara waaw ñun suñu salaire na mu ñëw wax naa la ko Moustapha boo xoolee gis nga événement yi passé xaalis bëri la ñuy jox tabaski yi passé xar la ñuy jox mooy loolu namuñu dara kon sëriñ bi duñ koy ñaanal rek doyul macha allah affaire sociale nag miin nañ ko tàmm nañ ko ñu ñuy jox ñun li jaar suñu loxo ñu koy joxe bari na e ñu ñu gis tamit sëriñ bi di leen jàppale di leen dimbali bari na kon sëriñ bi bu ñu jàppalee lii du guléet lii du tey ñun lii miin nañ ko comprendre nga kon nag sëriñ bi nañ koy ñaanal di ñaanal waa kër gi muy personnel bi yëpp di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal gudd fan Moustapha yow tamit di leen ñaanal jàmm bu baax a baax a baax di wax am nañ contentement bu baax parce que dañoo ñëwoon rek tàggu ko ne ko dañuy tabax mu yëkkati xaalis bu bari bi nga xam ne tey ji mën nañ si tabax ba mu des enveloppe baa nekk nii waaw xam nga ne du teew ñu koy nataal waaw. sama beneen laaj mooy. Mhm. ginnaaw bi lii sëñ bi ñu koy def ci monde entier ngay dénk personnel bi nga xam ne ñu ngi nekk fii ci sëriñ bi di liggéey ak moom. waaw Moustapha personnel bi même su ma leen waxul sax ñoom xam nañ gis nañ sëñ bi di def si nit ñi ci jaamu yàlla yi rawatina fii si kër gi comprendre nga ñu sëriñ bi depuis ñu ànd ak moom ba léegi rëccuñu ko tànk kanam rek la ñu am mais amuñu benn tànk ginnaaw comprendre nga waaw gis nga sëñ bi ñu muy jàppale partout dans le monde ñi nga xam ne sax gisu leen sax da leen di jàppale waxuma la ak ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si kër gi jege ko kon sëriñ bi ñu ngi koy ñaanal jàmm lu ñu koy ñaanal doyul personnel bi ñu gën a ñu gën a góorgóorlu Moustapha gën a jàpp xam ne jàpp bii du neen nit ki nga xam ne dafa ànd ak yàlla nga jàpp ko kooku boo ko jàppee da nga war a jàpp boo ko jàppul da nga war a jàpp kooku moom Moustapha jëru sax nekk di wax kii yàlla la àndal di dox si mbirum yàlla maanaam di dox si mbirum diine di jàppale nit ñi lépp lu mu am bokkook doomu aadama yi kooku xam nga ne kooku mu ngi dox si mbiru yàlla parce que nag yàlla bu la joxee alal ah saay bës bës boo deewee dina laaj foo ko dugal kon sëriñ bi nag macha allah muy jël alalam di ko bokk nit ñi waaw du lekk bàyyi kenn lu muy lekk loolu la ñuy lekk macha allah saay bu xëyee mu ngi xool lan lan lan la ñu manqué waaw sëriñ bi lu baax rek nga ko mën a waxal amul lenn lu bon loo ko mën a waxal kon nag dañuy am contentement bu baax a baax a baax di ko ñaanal di ko ñaanal bu baax di ñaanal waa këram lépp lu taq si moom ñu ngi koy ñaanal lépp li nga xam ne mu ngi si ëtt sëriñ bi ñu ngi koy ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax képp ku bëgg sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal di la siyaar di la bëggee macha allah Moustapha mhm. euh, sa kàddu gu mujj lan la. waaw Moussa Ba di am contentement bu baax a baax parce que li tamit dañu bett dañoo xëy rek Aliou Sène wooñu macha allah nañu sëriñ bi moo la jox enveloppe bi pour nga tabax kon loolu lañ ci am bu baax foogeewu ma sax parce que sànq ñëw nga ci man dama jóob bisimilah man xaw ma sax li ngay wax comprendre kon lii dañu bett dañoo xëy rek tey enveloppe Aliou Sène jël enveloppe bu dul na sëñ mooñ ko jox enveloppe bi tey ji mun naa si tabax ba tabax bi des kon sëriñ bi dañ koy ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal personnel bi yëpp waaw di wax nag personnel bi nañ gën a góorgóorlu xam na sëñ bi kenn du ànd ak moom si zéro ñu ne dépp ñu ànd ak moom yàgg na yàggul mais ñu ko wax dëgg yàlla parce que boo xoolee nekkul lii rek la def si man li mu def si man bari na wàllum faj ak lépp kon wax naa ko si benn interview Moustapha wàllum faj ak lépp def na ko si man ay ay seytaan yi ma jàppoon yépp tey jii boo xoolee jàppale na ma si lu bëree bëri ba ma gis sama bopp gis si tan comprendre kon sëriñ daal ñun daal ñu ngi nekk si kawam ñu ngi nekk si ginnaawam ñu ngi nekk si si si góosam ñu ngi nekk si droitam ñu nag sëriñ bi jàppewuñu ko ki nga xam ne dañuy liggéey ak moom mu ñuy accélère ñun dañu jàppan dañu jàppante moom kon comme ki nga xam ne mooy suñu mag man loolu laa jàppee sëñ bi te naa ñi si kër tamit muy alfuseen muy naar muy keneen loolu lañ jàppee sëriñ bi parce que man jàppee moo ki nga xam ne damay liggéey ak moom mu may fay weer comprendre nga dama ko jàppee comme sama mag comme ki nga xam ne dama bokk ak moom comme lii bu ñu ko defalee dañuy am sant di am contentement bu baax a baax di ko char di ko bëggee parce que lii nag yàgg nañu ko defal nekkul tey rek la ko defal waaw yàgg nañu ko defal boo xoolee tabaski bii passé dañoo jox xaar bu mag jox ñu xaalis bu bari événement yi passé ak lu événement dañu dimbale bu ñu feebaree mu faj ñu lu ñu soxla mu jàppale ñu kon sëriñ bi lu ñu ko ñaanal doyul barki yàlla dañ koy ñaanal ñaanal ba mooy loolu daal mu sa macha allah.